la xaadim rasul bind kon noonu turi téeram yi doone ci dégg-dégg bi ni nga ko dégg rek li mu la jox ni la téere bi bare njëriñ ci biir ba daj gannaaw nga xam ne nag lu mu taalif lu nekk barkeel na te xasaayit gu nekk bari nay daraja gii nag moom dafa boole xéewal ak lépp loo ci jublu itam mu ngi ci biir boo koy jàng loo ko bëggee rek na nga dogu ci loola jànge ko ko soo dee ku ko mën nag suba ngoon moom moo gës bu bu ñuy faat mukk soo ko tëlee ba tëlee ko nag waxtu timis wu nekk moom faaw na ko jàng naa gu baax a gu yàgg ci xasaayit mu ni ma bu fajar ak ma way bu timis mën naa yóbbu góor yàlla foo xam ni bu ñu geesoo ba seen ko fa defee ni leneen la doon liggéey lu gën a metti loola te sëriñ Tuubaa ko def kon nag ku dégg loolu na nga ci fàggu loolu fajar gu nekk daal sab gës bu bir boo mënee teg ko ci timis gu nekk sa mooy bu biir soo mënee boole ci jës bu amati góor gu baax gu mën a jës boog mooy bu dañoo mel ni ñaari xar yi ñu likkee soo yiwee menn mi yóbbu menn mi wàcc ko fa day jooy ba ba muy dellu si mbaama ba nga ko yiwee mu dabbi ko kon ku ko mëneen far boo jàngatee jës bu far ca teg mooy bu ak waxtu bu mënti doon bu la soog jot mayee loola kon sëriñ Maama Ndiaye yi ñu dem ci mooy bu waxtaan ci lu ci juum nag na ñu ko jéggal du sunu yéene xëy na sunu gaawtoo fay jaar mbaa sàgganteeg doomu aadama gaar na waaye du won lu ñu ca yéene woon ku dégg nag benn bat bu ñu fi wax ci arab mbaa ci wolof yàlla la sëñ bi defal ay xiiwal te xettali la xettali nu defal nu xiiwali fii ak fa nu jëm wayu attan na ko bismillah maam bismillah rahmaan arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ali wa sahbi wa sallama taslima وبايم النار وداء داري إلا الرحمن الرحيم <clears throat> يا كرم الشل على سيدنا محمد البادي لما قلق والقادم لما سبق لا الأق الأقي والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري مقدار العظيم بسم إلهي يا الملواي بلا مناي الانجاي بسم الله xadim rasul dafa wax ni boo xamee ni mu ngi bëgg def dara ak nu mu ko mën a defee ci ni borom téere yi di gën a sukkandikoo lu bari naan kulloom riñ si bàlli bi bismillah fa waab dara ne ñu yonent bi ne mépp mbir bu tàmbalewul ci bismillah ab kuuñ la waaye nag ñun sunu mbir duñu ko tàmbalee ci lenn lu weesu loolu ngir borom ñi nga xam ne moo nu may li ñuy wax dégg ngeen ko kon ni mu ko waxee bismillahi la ñuy sose ay wax sunu jëm ci turu tudd buur bi nga xam ne mooy buurum ñépp ngeen yéen mu yal maa waaye yéen ma ki nga xam ne na mu dotti lu waaye samay may bilaa bilaa manaay bilaa manaay ci lan tëg ñax wa walante ay walante ay te ma yemutub gàpp am dan am dan li raabe am dan sama cantu gimiñ li rabbi ñeel na buur bi ban buur xayral xayral ma rabbi xayral mu rabbi buur bay ngeen ji yàlxat xadraama ki nga xam ne leer la saab xol bi lax bilaxtidaay ci groy sunna kon loo sukoori ñeel na ñool màkk sama canti xol bilaa ko baari cant gu dul ànd teeg weddi waana siiru njool màkk rek ay sama ndimbal maa di baay wa wana min fudday minhu fulay sama njotu tukkee na ca mom nga ni la waxtiraabi la waxtiraabi la wa ñeel na ko axtiraabi sama jigéen ñàll bi la waxtiraabi bi la waxtiraabi ci loolu tëkku tumuranke la xitaab la wa ñeel na ko xitaab bi sama waxante ma atidaay ma atidaay ànd ak sama forlu la karilaay la ñeel na la ñol ma lay sama ngërëm la kazana la ñeel na la sanay sama tagg lakka dijaay la ñeel na tijaay sama wiru ma atidaay ma atidaay ànd ak sama forlu ya man sama yaa man a mi nga xam ne safaani saafara nga a yaa man amaane. yaa man yow mi nga xam ne amaane aar nga ma. aman jafaani. aman wadif ñi nga xam ne jafaani desal nañu ma. bi max wi daay. bi max wi daay ci for braak sunu. asbil sutura. kon yal na nga sëmbartal sunuy sutura. alil umaari. yal na nga yéwénal sunuy biir. kasi xuyaari. a jaaba. yaa man yow mi jaaba da wuyu. ijaaba ca ka sàkk ku ko wuyu. ab li ijaaba. da ngaa naa nga may ma wuyu. fi sani daa. ci tagg yi ma lay tagg tey. yaasal jalaale. yow mii di borom màgg gi. يا ذا الجمال يومي دي برام تاربي يا غير والي يومي كن كن يوم ينجليل شاذ الوائي سلال السماي مي يا سلوودي يوم برام بروغي يا سلوجودي تي برام تابيكي كل بجود نكال نيال مكسيطة بلانتيائي ما يتبقى متبقى شاذ الوصال سلال السماي يد بلا قبالي سلال التكساق دم لجد بزوالي نيانا لقب يد جامري دالي كربة السابلان باي أبلي تلال نانا نعم، لما يدرس ما لا لا ولا تبني خب دروس قبل دراية ما يمقام خم دراية لا لا لا بس دي أخو كايبة الله تيالي يو إن الالسما ينبير بلا ارتيالي سلوان دو تقم ماي لخص بدي إيالي يار المسان جبا بلا بكاي تكو بني جوي لغب المتابي نمو المسنو توك ومي جنابي فرا المسنو يوال وسلم أبي نيو المسنو يوالي يا بسكاي كين يوال سلم خل كين القاي مقرارا تقل ما إبليس ومقرارا فرل ما ورم يا أهل النصارى ما يميتم سندمل ما آتكاي ومسولوت لجرين قل النبالا ودل ما أي مي يلمي كمالا يدول سنو مت يا متالا يومي أجي جومبجي أنصركاي يا ودف بوكالي شتا أدايا دول ما أجيب قد أدايا ومتل ما أي مي لي بلدايا منيال منغرم دونستي كاي شلو مني ñi di ma jéem yaa xayra muqnaa ñoom yi ngeen di géejal axnaa bi ma nii te doyal nga ma ciw yiw alius na danaa jung jëm ci yow bila xalaay ci loolu tag mbañeel lakka sukoori ñeel na sama canti xol inda du yoori fas samay kër bu ma toog yaasal xusoori yow mi borom ngeen di bila jalaay ngeen di dul toxu yi yaa man ka saane yow ki ma sàng yaa man saqaani yow kil ma nandal yaa man amaani yow kil ma aar lil xalaay koy def mbañeel anta mraada yow rek ay sama nameef anta imaadi tey yaay sama kenu nawir faadi leer na saab xol yaa zaliyaa yow mi borom leer yi shasataay bi sorilal samay azab taray bi demeel sama dëng tayar ta jay bi na nga leeral sama xol kaalas fi yaa ma mel ni way xellu ya mataleel ma sama dox tayab tamayri teelal sama xont kulli bi xayri nekk ñel ma ciw yiw kalal qiyaam ma mi lu may ragal yàlla yi yaa xaramuy yow nga di dimbali ji kulli biraay nekkal di sàmm sama lépp wa xayra saay te ma yor ngën di jëfit nag kalas kiyaay ba mel ni way ñaw ya ab listiqaama may ma may boromuk sax xinil malaama tegal ma yeddeel ab lil kiraama ñaan naa la tedd nga bisil waay mu bawoo ca borom parisol bisil jamaali koo kii borom taar bi bisil kamaal ni may boromuk mat bisil maali jël na kay borom mbooloo bisil damaa te mooy borom ñaan ya bisil ibaada koo koy borom jàmm ñi bisil ibaada te mooy borom njëriñ yi bi xar xiyaada mooy aar jaat ji xott ji baax li lawliyaa ñeel wàlliyum yi bisil nawaala jël na kay borom yi may lesil xitaali mooy gaynde xare moo diri jaare moo gaaw ci alak góor alas xiyaar góor ñu nar ta texe ngir saabu njol ma kay borom saaba ya cawili jaam saaba ya di borom ak wuyu jaalil kaaba ñay aji wuñu ji njaqare cawili yaay tey woromi leer bisil uraabe ndebe borom xale ya jaalil kuraabi xale be wuñu njaqare noorul aribi tey leeral lisik maari yaay tey fori njistal cakal muniru kokoy aji leer cakal basir mooy aji bégle laasi danaa gindi jëm ci moom bila sanaay ci tagg bii ma koy tagg la xitaab saa waxante ñeel na ko bila itaab duma wax ay yeddeel wala ijaab kii raay du dox suñu diggante wala naa duma sonn door cee jot xayil baraaya yow mi gën ci bindeef yi yaasal masaaya ee yow mi borom xëywal yi yaasal ataa ee yow mi borom may yi shaabi binaa selelal sama tabax anta suraare yow rek ay sama mbégukaay bila quraan buroore ci loolu takku waru caabi buroore keneen sama topp. naafere fenaa leeral samay ët. fii ga aqoolu yow rek laa wax jëm walaalu wax du mënta jeex fii ga aalu yow rek laa xam jublu bila fanaa xam-xam bu dul jeex anijsaaka yàlla fay la ci man nag rabbu la daaka buur bala def ngay ko jub fawxal manaaka lu kawe li nga jot yow mal gisaa ca bisu payoor ba jasaaka rabbe yàlla buur ba fay la yaa xayra be yow ngeen ngeen di ko ñu sopp xayr mu abi te ngeen di ko sopp yàlla bila tisaay ci lu amul werante xadima من نك may sab liggéeyam ajraqimu fu ma fa taxaw laa waxe walaarimu te du ma jóg ci li ma wax dama jóg koo أنت مجير يا لك برم بخ من القرار يعني دم لتبليس ومن قرار بقرن ورم يا دايز قا دي وتك تخيدي شنت مكاني كنا نيونغ سم دك شتاماني تدولي سم گم قبل زماني ما ما جمانو بيت بزل بقى مجوك تبرم دسغا انت سلوكي يادي ابدو كاي الى الملي تيكو سوبو جيم تي بوربا ما الى فوكي بوربا من فريدور موت نقاي تي دولي اكلا موت نقاي مولاي وني فريدور كون دور مو ماتا خام ان لو دي دور كوني جين لو خامني ديفوكو اك كوني تك لو خامني ميلونا اك كوني نجورتي فو نيكوت اك كوني نياوي نجورتي تي فك nga bax lol lepp bul faale it la nit ñi di wax bul geesu te la ñuy def dëgg mënal yàlla mi la bind bind ñi te xam ne bu foree say dur dur yi far ñaana nag sëriñ Tuubaa di ko liggéeyal te ñu defee ni sëriñ bi dafa mel ni ku leen gën a muus di leen nax yàlla for na yooya dur yàlla dogal na xam nañu ni sëriñ bi naxewut xam nañu nit ñooña dofuñu ña duura leen seen waa kër ak ndof ak ña duura leen sëriñ bi mu naxekat ñoom ñëpp seeni dur dañ na te yàllaa ko for ba mu set wécc te sëriñ ma nekk di werante naan ndaxam du ma naxe ñooñu nekkuñu di waxanteeg seen bokk naa leen dun ko dofunu waaye yàlla ni tekk moom bàyyi ñooñu ñuy def ngir yàlla kenn leen woo ngir yàlla ba yàgg mu fordur ya bu la neexee tënk ko ci boobu piri dana rafet ngir ñu bàyyi ko fa waaye ëpp na loolu itam tungoom na lu bari moom mu mii mayelu fooki yàlla moom mu mën a for ay dur muxti naqay te dolli ak laab dolli laab kay ca la fori dur gën a ngir kiñ naan baax nak baaxul dogal mu baax taa bàyyi ki ñaan jumna naag jubut mu dekk ñu set set mu ta dëng ki ñu naan dana def lu baax ak du def lu baax muy def lu baax ta bay ku naan day nax nit ñeeg day njur njurum japp mu dekké la mu nekkee woon soppi te soppi googu mu ta soppi mooy mujj mu far lañ ko doon dural ci lu baax jak dana baax ja kon ku ñu dollig lab dal ki ko dollig lab mo meuna far ay dur moy rabbi ci isati borom tubaab ki lay tag wax la ni mu mel mo ké ko sàkk daldi la indi latal melokanu ki muy tagg la anta jamil anta jamila anta ñol ma nga nag jamilu yaay boromum taar lakka amilu lakka ñela amilu sama jeng anta rasul anta ñol ma ka rasul yow la yàlla yónni bila jaraay bila jaraay ci lamul benn werante lakka lisaani lakka na lisaani saaw la mi maal junaani maal junaani boole naa ci sab xol man duma la noonu kasu araay duma mel ni waykat buy def bu ñu ko mayit mu gedd di xaste man melu ma ni wayaan kat dama lay way rek yow anta sabil

te bind jëm bilaa malaami te duma bind yeddeel bal bi lillaay li fi nekk ci ngërëm laa jëm yaasal jamiila yow borom taar bi يا ذا الفليلة يوم يبرم جميل أنت الوسيلة يوم يلا دفن إسكر كرام لذي القلاي سيكون بقى يجي تبرم فدي تاجو سكونة سيوريك لا دستندك إلى المتينة دم تبوم قد كرك بلا بطال دم تبول الفتنة ولا انقلاي دم تبول النونو قايا لبالي يوم ينقن دي جام بابا ليالي تيبون تبدلو نور بلالي ليرن دبخ يب asnariya yàgg na yëkkati ku lu ñu yaakaar asabta xame gemeel ma saa ñàqare maa dusul me faral ma saay tooñ li jut bil me te may ma xam-xam daay na jaay buy woote ak mucc asabta baqre daqal ma ak ñàkk li sundal fiire te ñomal sama mbóot min xayri makre bu ma kenn mën a fexeel walaay jaay te bul ma jéppi ci ñaan bi sakita nafse sellalal sama bakkan fakak taabsi te damm samay jéeg asubta lafsi te daq dàq samay lënd. suntaqi jaay. te desal samay wàll. sunda jaati. waaw kee ñoŋal samay wàll la kii desal samay wàll la nga si taw ibaati. si taw ibaati. te dolli samay may. ab xay te saa. te jëmm nag. maal ataay. te boole ci ay may. ko kii moom mën a desal jëmm boole ci ay may sëriñ bi néewul naa fi des di def bés ba nekk ku ñëw may la mbaa jàmm nga am. waaye daf ne yàlla sama jëmm na fi des na fi jëmm ji dese daay man du fi jóg fekk jamonoy dox ku nekk fa mu toogan woo nit ñi digal leen la mu daan digle tere leen la mu daan tere nit ñi def ak yow nañu daan def ak moom kookaay doon kooka loo fa daan jële ba fa sëriñ ba nekkee ka fa wut sëriñ baa ko yor di ko séddale na mu ko daan joxee loolu la ñaanal boppam ñaanal ko mbooleem ku mu yaran seexal la ko nekk lal ba nga toogan ka fa toogaat ñu ne sa taawa bu wootee ñu wuy ji ña ko yaakaaran la ñu fa doon wut ma nga ca kooka dana ko joxewaat na mu ko daan joxee motax mu ni ko ab kayta na nga seetal sati sama jëm mala tayte te boole ci ay may nga door ni lakk rujo yi lakk la kanyel la lakk rujo yi sunu delu maa ji mooy maa ji sa mbolo bi khairi jooy bi khairi jooy ci lanu ko xiif wala qatai wala qatai te do nek ak delu aljana ci yonent bi les di jaar door ko man aljana la ñu jóge woon suñu mam adam ak awa fa lañu leen rëgate ñu dik ba aduna ñu lo leen ku mën a jàmm lu la delloo ajana dellu ku mënta jaamu lu la delloo ajana xanaa dafa safaan ba yegg safara yegg sëriñ bi ne yonent bi nag làkk ñel la rujo yi sama dellu maa ji muy ànd ak sama mbooloo bi xëri jooyi te bu nu ànd ak xiifu bar saq wala xataay bu nu fa feeñ ak ñaaw kon néegal ma kon làkkal ti fati làkkal ti faati ñeel na yaa sa salaati yow mi borom xéwal yi baax da salaati gannaaw bu ma jullee nag ma sanaay. boole naa ci di la tagg. an karali doom. ci yow laa gërëmoo. bi ganna si ci yow laa kama xaniitu. ni ki may géejale. ani lanaay. ba wadif coono. la kam ti daay. yéen a sama tagg. yaasal salaay. yow i borom yéwénal gi mbir. yaasal falaay. yow i borom ngëneel yi. yaasal xinaay. ay borom koom yi. fii kaw naa di. ci yow rek laa woote nag. kulal bilaadi. réew yëpp laay woo. li zilibaadi. jëmaleen ci borom jaam ñi. baalil ximaay. ci teeg asamaan yu juróom-ñaar te mabul ci kaw nit ñi kooku laa ne ci laa jëme ñi may woo kon neel fii ka maawut. fii ka maawut. ci yow nag laa fare. maa xat jaanaytu. lépp lu fii ga taxayta. ci yow lay sakko. xayra na maay. lee ngeen di xiwal. fii ga saabi. ci yow lay dem. fii ga yaabi. ci yow lay delloo. bi laxtiraabi. ci la mu tumuranke. lakkanti maay. ñeene la sag jafandu. sa sa taabi. kon demel ma ayib. uta janaabi. fekk samay wal. bi laakaabi. bu ma ànd ak coono. wala abaay. bu ma ànd ak mbañeel. yaa xayra maay. yow mi ngeen di far. maal junaay. faral sunuy jëmut. maal misaay. te far sunuy peese waxta sama te liy nur waxtu waxambaane am taabibe yow mi saab soppe yaaman ubibi tey ku ñu sopp bilaaw yoobi ci loon fekk ayib wala si baay seen tak mbañeel yaa xayra waay yow ngën ji méng yaa xayra daay tey ngën ji sàmm yaa xayra daay tey ngën ji woote li si samaay ñeel borom asamaa yu juróom salalayka alayka yàlla nekk ci yow sala ay xiiwal bi man bi man la day gaa. bi man ak képp koo xam laa dekk nekk na fa yow. mu ne naa lay gaa. musulin ak mucc ale kee la nekk fa yow. indari maay. fas way gun tax ya. alayka salaam. salaam ak mucc ale kee la ne ci yow. daaban wa karam. daaban faw wa karam ak tedd nga. man bi gaasam. man. ka nga xam ne xeesam màggal na bii ka ci yow yal na bokk ci loolu. a axlitimaay ci way sukkandiku yi nangoo jébbalu. bii ka aqoodu. bii ka ci yow nag aqoodu laa a ci yow itam awwiidu laa jëriñ. yaa ma ne soodu. yaa ma yow mi nga xam ne soodu da nga sang. sawistifaay. sawistifaay ñi war a mu seetan. sawilu xoole. kon kuy ba mu xel ku ne. naajura soodi. nekkal ci ngërum yonent bi. maal qabooli. mooy forsak woyof. maal qabaay. te forsak sàggan. sawi zakaay. kon ñi borom xel yi ñëw. li sil bu waay. te boole ci taar bu xam-xam. maal xataay. for nañu seen i ñaaw de. maal jabaay. for sunug def. càkkal mu taaw. koo koy aji tànn. càkka su jaaw. koo koy jàmbaar. biyu raaw. si moom laay noté góor. sawali baay. buy boromu bañ diine. càkkal wali yoo. koo koy aji méng fa yàlla. càkka naji yoo. mooy aji mucc fa yàlla. càkka zabi yoo. mooy aji sell fa yàlla. soorati baay. mooy aji dara di mbir. càkka nasiiboo. koo koy aji askanu. càkka nasiiboo. mooy borom cosaan. shakala jibo. kooku mooy borom gu yéemu. baadil ibaay. mooy aji feeñal jibtaal. wa wa nafiso. mooy aji sell. fala taqiisu. bu leen ko am xel yaar. wax wa raisu. moom rek ay kilifa. lil anbiyaay. ñeen mboolem wàll yi. shamsu samaasi. mooy jantub jant yi. raxsu rosa. di kilifa kilifa yi. xayru lanisi. moo gën képp kuy nit. lil awliyaay. ñeel wàll yi. sibaasu doore. saafara meddan yi. li aw doore. leeral na kër yi. yi badul bu door mooy weeru weer yi badul yaa moo feeñalub leer xaysun sakoora mooy waamewu ngërëm laysun gaboore mooy gaynde xare naa bi na boor mooy dàq way daw ya mubtil xalaay te fañ tey wane pajuk aajo janaatu haade mooy ajani ku jub niiraan waadi tey safaraw ku dëng fal fasul baadi ngënee la ngog bu feeñ leelu xalaay waaye ko am xel maal xataaya far na suñu ñaawtee baadi la feeñalal nu ay may aadil baraaya yaa jubal bindeef yi bilaa qalaa ñeel na ko ak mbañeel loo baraa ñeel na ko ak topp lawoo safaa ñeel na ko ramuma lawoo jamaa ñeel na ko ab taar aw ittiqaa moo làq ak yéeg in raama ilman booy sàkku xam-xam aw raama xulman wala nga wutum koom aw raama sulman mbaa da ngaa bëgg a tooñ baaxi liqaa seenu daje des na fa saaka yuudaa dana la jubale ci xam fa saaka yuudaa dana la jubale ci am loo moo gaaw ci dugub tooñkat. ba soppi ko texee di kat kon yaari waye ngay boole da nga naan fa sàkk yoo daa ci kaw lan indraama ilman booy sàkku xam-xam fa sàkk kooka yoo daa moo la ciy jubale awraama xun man wala ngay wutum koom mo sàkk yoo daa kookaa la ciy jubale awraama xun man. ak awraama sulman duñu benn moom sulman nag ka koy tooñ moom lay doon kon la wóoyor daa ñeel na ko delloo góor googee ginnaaw baaxi li xaay dese ngeen ak daje ngir sabi sa xay ci texe di la lay daaneel door laa bàyyi moom bu lay moom yonte yàlla Muhammad nga door ni lan aadin mujiira yaay jubal nit ñi di leen dimbali noorul muniiru yaay leer tey leeral nit ñi xayrun basiiru yaay waameen wuy bégle les fidaa ñeel képp kuy aji jub aami nasiiru yaa ni dimbali di noir daarin basiira yaay wootey bégle laajun nasiira tey ne ngay buy xuppee les fidaa ñeel ku làqu dëng muskil saakin yaay dimbali ku sóobu tey góor bisirin li baakin di bégal booy jooy muskil li aakin karawulu way tawat yi kenn ku dikk fi moom dana la joxum noppam ba xam li ngay tawat lu mu ngir bëgg la ko fajal waaye du dikk di la tangam lu mbaamu di la xeeb wasina daay koo koy boroomu tagg mun jilli saali moo musal ku góor te jébbul mun jilli naas musal ku jigéen te jébbul jali awaleek aji wuññi ji ay alkande di ko jëme ci baax. am ci tuqaay. mu laq ak yëg. xun mun faqiire. mooy koom way ñàkk yi. jabrun kasiira. mooy jàng way damm yi. siitu aqi. mooy dolli way xeebu yi. baaqi wiqaay mooy aji desal jig may. wal jaliya moo koy aji màgg nag. wal xabiya mooy aji kumpaw. wal najiya mooy aji mucc ju mën a musle. fil baqaay ñeel borom des ga. loo kitaabe. ñeel na ko sama waxante. loo jawaabu. ñeel na ko sama ton. loo sawaabu. ñeel na ko saab yoon. maaridaa. booleeg sama ngërëm. loo burooro. ñeel na ko topp yàlla. loo suraar. ñeel na ko mbégukaay. talxaara. dana doon dajaleeg jigéenu ru lay ni bax da xalaat di gannaaw pajuk aajo na ko bi ma tuubee min kuliyaabi ci lépp lu ñuy wéel maal malaay ak lépp lu ñuy bañ laaka xabaare ñeel na koy xar baax min til xalaat yu tukkee ca borom bindee ñu jëkk ñu musu ko am wala li jaay ñu mujj ñu doodu ko am mi antiraabu na jëkk ki may tere loo xam ne dana ragal loo aman yu xaar te ki nga xam ne daane ko tiit baax di jaay gannaaw ba mu sukkandikoo nag kon kooku meneen xar baax la bu la daanu ko di jiiñee loola sëriñ ba bàyyi koog ñoom muy sëriñ ba bu ñu ko jiiñee yonent bi bàyyil mu yonent bi leneen lu ñu ko jiiñ bu la neexee ba ko fa boo yaroo yonent bi dafa amoon ku lànkan ba ñu tuub bari gàngoor woote beru waaye nag yàlla dogal ci moom ak ragal gaynde te bu génnee ci àll bi rek gis gaynde ba yàgg mu ñëw ci yonent bi ni ko ñaanal ma li nga nekk bu dee dëgg boo ma teflee ba tax gisatuma li may gis yàlla bi danaa la gëm te kon ma dugg ci sa diini maag sama waa kër yonent bi ñaanal ko mu demaat ci àll ba ñetti yoon gisut loola mu dikk ni daal ñetti yoon doy na jéngat damay tuub waxtaan ceeg waa këram ñu ne ko nun yaanu téye woon moo na noonu nan tuub ba tey nu tuub bu yàgg yaanu téye woon tuub ñu ànd tuub mu xir nag nekk ci kër yonent bi di tërbiw ko yonent bi yónnee mu mel ni ab courrier daal la fi nekkee fu ko yonent bi yónni nag ci dëkk bu sori bu génnee fekk naaru góor wu ñu fekk ba mu jekk ca mbedd ma naaru góor wen ni ko war ma te bul ma yeggale ci mpénc su waree mu yóbbu ko fa mu soxla wacc ko ca mbedd ma dox soxlaam dellu si waat war ko ba fi mbedd mii fi màkk fi wala fi medina fu mu ci waaye nag du ko yeggale ci mpénc ko daanukat yi déggee nag ni la sëriñ bee soppi koon gaynde ngir waaja gëmut yonent bi la bëggut woon moom jàmm waaja tiit daal di jébbalu mu delluwaat soppi ko naaru góor ngir bi mu bëggee yonent bi ba di ko liggéeyal la ko nangatula wa ci mu sonn bu la neexee ne yonent bi amoon yeexar baax bu la neexee ne sëriñ bi liggéey li nii yonent bi ba nit ñii dikkagul bay mën a liggéey ndoog moom waaye bu la ci werante nër ta fekk neel kii maa nangoog te nebee ko tax a xew rek neel kon xayrul bara xayrul bara yow ki gën ci mbindee fi nag sundal bala sagal noonu luy bala li dil xataaya na ñeel way ñaawteef yi nga xam ne bëgguñu diine ñu diine te duñu dikk ci diine mukk rumt rumtu na jaay ak mucc laa sàkku fi yow antal karima ante yow njol ma ka nag alkarim yaay aji tedd mu ne su ko wax koo jàkkaar loolu ku ne ci roqo nga ne ca bitti dootul tudd anta anta yow mii lay firi alkarim yaay aji tedd ba muy aji tedd neel anal ana alxadim ana man bamba alxadim may ki lay liggéeyal guddeeg bëccëg ca naratuma wàcc ci liggéey bi ngir daar daaran mu diimu daara diiru jamono uddiimu danaa saxoo lan lay saxoo fii ka sanaay sanaay soo tagg fii ci rek la jumlu gi rumtu rumtum di daa rumtum damay sàkku am si daa ci tagg wi yóoti yóoti fala fii di tila fii te nga fegal ma ci tala gàcc ma maal anaay maal anaay te nga faral ma coono ni di ma di man bamba nag mi ci tagg la yow jullit. ayantoru daa. ayantu laa jàkkaarloog rek is sama tool. xataan wàllu ji. xataan ci la ndokk wàllu keeku mucc. ma albinaay. ma albinaay booleeg sama tabax. laa kenn ajastu. li fi nekk nag lottal na. amal tamasto. kaña doon lamb lu ñu wax. wama amadeetu. ba ñu di leen waaye tàggkat. kaanu balaay. way xel yu mag yi ñu daan wax Kaaba ak Hassan ak Soyor ak Busiri du ma seen morom nuru wu nu tolloo wu nu tagg maa leen gën a rëy lu ma def ñu ne ko lu tax mu ne xaar. xaaral mi daada. damaa nekk ci daay yi ma jege woon ba ñëwoo. arafaadi. xol bi tàng la gëlëm na. almaduwaadi. ngir tagg aji jub diine bi. lil bu dalaayi. mu jëlaat tegtal ci yàlla. fa kayfa fii. kawteef naka la ñuy làqe mat an li mu yee aw tagg ñeel aji dimbali wal mad mu yee te tagg ba rek di dimbali lii lu xalaay waaye comme xale ko mën a xam ka taggan dem kamu taggan dem taggkat ba niwu fi kañu taggan niwu fi taggu neen def fi kii nettali tagg wi ñu di ko jox ba mel ni kañu taggan a koy may mbaa ñu di ko jox ba mel ni dañuy may le kañu doon tagg mbaa ñu di ko jox ba mel ni moom moo taggan ci boppam waaye sëriñ bi ne lépp kat borom xel ko mën a am kéematum xel mënta jëriñ ci boobu tagg nga di lakki laa gënoon a li fi nekk na man xaadim waat naa kulal. kulal ibaadi. jaam ñëpp laa woo góor ak jigéen ila. ilaa imaadi. dama leen a jëme ci kennu kennu gi mel bila. bila jalaay. ku ci mucc dootoo daanu yaa. yàlla bari. yéen ñi dëkk jéer yi xam-xam. yàlla bari. yéen ñi jé géeju ci xam-xam. ujooli bari. jéng leen yéen ñëpp sama géej. bari saqaay. maayar géeju texe sàmm si. ak ceddo ak jaayil yi xamut woon dara te bëgg diine ba ñu dikkee sëriñ bi ñoom lay wax ni dañoo nekk ci jéer yi xam-xam doomi soxna yi ñu doon jiiñ xam-xam ñu yor seeni téere tudd ay kaang ak yi tef i tafsir diw ak i xaar ñoo ñoo géeju ci xam-xam sëriñ bi ni yéen ña ca jéeri ji ca xam ga ak yéen ñi ca géej ga ca xam nga ña géejoog ña wu yéen ñëpp ànd leen jeng jëm ci sama géej ñu ni ko lu tax mu ni maay géejug texe gi ñu ni ko bu ñu dikkee nag mu ni maay maa gaaw ci for ayib boo tuubee. mu di xuyoo bi. maay fayal seen kumpa bu ngeen ko bëggee. min xijaabi. may seelal seeni xol ba ngeen mel nan. min attaqaay. ngeen bokk cooy ragal yàlla yi demaa jënd boole gi. musiaabi. may indi li ngeen bëgg te amu leen fu mu ne. murdiaabi. may alag seeni noon bu ñu leen di tooñ. muti muraadi. may feeñal seeni na meef bu ngeen koy wut. maaraqaay. lu ngeen woomat ma yolamal ko mu ànd ak yéen. may rasaayila. caay caay lay nuróol waaye raxasi ndab la nu ko mën a tuddee nun nga ne muuti. muti falaayil. yulli ngeen da koy tax a yàgg gannaaw raxasi ndab yi yekk na ci ñam doos a lekk nga ni muyil manaasin may yeesal seeni wàccukaay lay firi waaye dal bi ak faneen fu dul dal bi la ci boole bu sa poos ràppee te mu tax bu sa kër ràppee te mu tax ak bu sa doole jeexee te mu tax moo koy yeesalaat yow mi yaakaar Serigne Touba bul tiit gannaaw bu yaakaaru Serigne Touba jàmmay xam nga ni baax bi baada la baay te gannaaw ba mu ràppee boo nimal abibu ndànk gannaaw ba nga ràppalee sa kër ci topp Serigne bi dina ko tabax mbaam mu seng ko ba nga ràppalee sa poos te Serigne bi tax te foo dana ko fessalat ba dutul meuna jeex gannaaw ba nga rappelé sa doole te serigne touba tax ci liggéey neena boole booleeg ñu dina la liggéey lu kenn mënul woon a liggéey noonu ngay xamé ba dala la ji ci gannaaw ba mu rappé nga doon niimal niimal labibu ak bax soppe bi niimal labiba niimal xari ci tegu ak bax baax jigen jigéen ji yàlla labibu nimal karimu ak baax aji jigéen ji yàlla nimal labibu nimal labibu ak baax aji xellu ji maal xafaay maal xafaay far na sunu wayal amal yàlla kon nag aaral ma sàng jibor kaabal xitaala te faral ma rayante ci ñoom maal ma jaala faral ma wëndeelu teg ci bila ribaay